qui def leen ci raxu dàll multiplier leen par zéro di leen xasaka saagaak yàq lu mel ne xeme bay far sax di toroxal boppam moo nekk ci xët wu njëkku journal moom koy dugg na naru bëri ki ne fàng ne jant te kenn dootu ko laam-laamee te wax ba dugal boppam mu amee xët wu njëkku journal yi La Tribune L'Observateur Le Quotidien L'As Les Échos su A ñoom ñëpp ñu amee seen xër wu njëkku yéenekaay ak Moustapha Cissé Lo L'As nañu Cissé Lo koy diree nañ ko ci l'affaire dëkkub dóore fayoo ko tasoon waaye ñi bu ñu fayoo ba pare kii moom du deseeti dara ci mim réew du samay kàddu yéen a xar wi njëkkulaatur bi ñu fekk fa président Macky Sall nee na lu ëpp nag tuuru te kii nag ay waxam mi ngi bëgg a sax na yëg suñu kaw yi bopp l'observateur mel ne ku koy feelu naan ko histoire politique sey kay bu doonum ñu ne tas te sax nag tas gi kenn da koo nëbb lii moom ci penc mi la tasee ne fàng na jant ñëpp di ci ñi am li leen naqari te mënatuñu ko muñ ñu koy jokk jëlaa sante ba mu egg fële ca les échos yéen leen xar wi njëkk journal bi waa Benno Bokk Yaakaar te itam fas yéene nañ jugaat

nambar seeni xel lem seeni kaaka dajaloo doon wennu say fas yéene xool yan daan lañuy teg ndoddal Cissé Lo mi Abdoulaye Diouf Sarr moom mel ne ku leenu feelu naan ca dëgg-dëgg Cissé Lo moom dafa jalgati sàrt réew Guy Marius Sagna nangoo wax ji ca moom nekkul ëpp nag tuuru waaye kii dañu Cissé Lo moom ay mbiram ca dëgg-dëgg nag mi ngi bëgg a doy waar ndax man musuma gis nag kuy saag jiitum réew meeg soxna lii moom sàcc alali réew mi sax ko gën a sedd Thierno Bocoum mel na ku koy feelu naan ko ca dëgg-dëgg moom li mat a wax dëgg rek waxagu leen ko ne Cissé moom ca dëgg-dëgg yàgg naa cokkaas opposant yi rawatina nag njiit yi waaye ñun moom ñuy def ak suñu tàppet kenn mësu koo wax dara sax waxuma la di ko juuj baaraam ñi ko bëgg a juuj baaraam te xamuñu lu ñu koy def ñu bëgg koo yanu yóbbu ko fële ca fajkat ya ñu amee xaru ñëkku source a yéla xaru ñëkku journal bi journal bi nañu ginnaaw kàddu yu ñagas yi nga xam ne Moustapha Cissé yëkkati na ko teg ko ci ndoddal gouvernement Sénégal bi li ñëpp di laaj yi moom dafa ñaaw ba egg ca lool journal bi nañu moo tax li ñëpp di ngawti ngawti mooy Cissé Lo mii moom bu buñ ko yenuwul faji ko est-ce que nag du far ëppi ay loxo lii ëpp ay yoxoo te tee ko jafe ci mim réew mu amee xaru njëkku l'enquête yeneen xaru njëkku journal yenn ak woppi covid 19 ji journal bi nañu wopp ji moom ca dëgg-dëgg kenn gënu koo dëgër bopp ndax lu ne wax nañ ko ko lu ne def nañ ko ko mu lànk rek toog ci suñ digg bopp yi waaye kenn du waa ndakaaru ñoom moom li ñu buub ci jàngoro ji kenn yenuwu ko ci journal bi nañu ñu xoolee bi jàngoro ji mi ba léegi waa Dakar West moom li ñu ci laale kenn laalewu ko ci ndax gox yii di Yoff Ngor Almadi Wakaam ñoom am nañ ci wopp ji lu toll ci junne ñaar téeméer ci ay cas laas nañu mbir ya ma ngay gën a doy jamono jii may wax ak yéen moom cas yi moom ñooy bëgg a tukkal réew mi ndax jamono jii may wax ak yéen am nañ lu toll ci ñeent fukk ak ci ay cas grave ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yu ci laalewaat tey ak ñetti néew ñetteelu jëwrin ci laale ci woppi covid 19 ji bañ far ko quarantaine moo nekk ci xët wu njëkku vox populi ñu fekk fa Alioune Sarr Sarr mi jëwriñ ji yor lépp lu jëm ci roppalaan yi moo far laale ku am woppi covid 19 bañ far ko quarantaine Sarr nii na xam naa fi ak fukki fan ak juróom moom ma mën a génn di dem fenn naka tambaambalu ndax xas naa laale ko amee wopp ji ba noppi xanaa ma leen di gën a ñaax rek ngeen gën a moytu te jëfe ndigal yi di xam ne wopp ji moom ku ko xeeb rek dalaa teggi ñi munta teggente ci seen biir te ku wax ba jeexal kaneen jël ko tontu ñu amee xaru ñëkku wal fajiri fa ate pa gujaa bi ginnaaw kàddu yu ñagas yi nga Aby Ndour yëkkati woon na ko jamono yële wees naan Atépa da koo bëgg a ger yëkkati xaalis bu takku teg ko ci loxoom ngir fas yéene def ak moom yëfi saay-saay Atépa nag tontu na ci kàddu yu ni mel Atépa nee na man manes nañu maa waxal lu ne ba mu des moom jëfi ñaaw téef waaye Atépa yëmu ca neen Aby Ndour nag ca dëgg-dëgg damaa xamul waaye man duma ko ñuy waxal may bàyyi noonu muy sedd Atépa yëmu ca nee na man moom dañu maa xamul rek waaye ku ma tamit ma xam sama bopp ndax dañu maa yar ba egg ca lool ma jàng nag bu yey samay këyit rawatina nag lu jëm ci wàllum gën a doy waar rek ci wax ji te Atépa wax ko nee la man Aby Ndour bu nee ba ma gëjee gisanteeg moom yàggul loolu moom ay nar dëgg la rek ndax man ñetti at a ngi nii yu mat sëkk yoo xam ne suñuy ñaari ba tegante wut kon nag ba lëg ak